عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله maa ngi fay nuyoo bi di ko jaarale ci yéen ak ñëpp ñi nga xam ne yàlla na leen baaxee ñu seetaan ci vidéo bii maa ngi ndokkeel waa Sénégal waa Medina Baye tout d'abord taalibe Baye fu ñu mën a nekk ci àddina waaye maa ngi ndokkeel Sénégal maa ngi ndokkeel alamul islam yi ci weer wi nga xam ne yàlla moo ñu digaloon ne nañ ko màng fa man shahida minkumu shahra falyasumhu la yàlla wax ci alquran shahru ramadan alladi unzila fihi alquranu hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum shahra ay faman xadara minkum shahra ku teewee weer wi te amoo ngant te ngant du sax bu saxee di jàngoro ooral weer wi yàlla dimbale nañu ci kattanam yàlla dimbale nañu ci roy ci lu suñ sëriñ daan def bu weer feeñee buñ ko gisee or buñ ñu ko gisalee ci nit ñu woor ñu or bu ñu ko gisalut ñu motli iddata chaabaana salaasina motli chaabaan muy baraxlu fanweeri fan moo ñu dal ren ñu woor woor nañ ba egsi nañ ci fukk ju mujj ji nga xam ne mooy fukk ji gën a barke ci weer wi te weer wi lépp barke na fukk ji nag li tax ñu tànn ko tey di ci waxtaan dafa amoon jaam yàlla bu baax di mbokk mu yiw mu baax mu bëgg yàlla mu bëgg yonentu yàlla Muhammad mu bëgg sëriñam Cheikh Ibrahima Niass mu Cheikh Mouhamadul Hadi xalaat ne gannaaw yàlla alquran mu ngi ko wàccee ci laylatul qadri munajjaman la jumlatan waxidatan di ko wàccee ci yonentu bi munajjaman mu ay aqsaat xasabal xaaja mu ne man danaa dajale bis boobu bu jotatee danaa dajale mboolem jàngkati alquran yi sëriñ daar yi ci Medina Baye beral defal leen defal leen bernde jox leen ndogu jox leen hadiya ñu soog faa bàyyeekoo ñun ñëpp ànd dem ci jumaa ja mottali ji Cheikh Hadi moomu def na ko ci dundam bi mu koy def dimbalee kenn dimbale dimbale dimbandoo ko kenn moom ak li ko yàlla jox rek la wax ko ay mbokkam yëpp ci dëkk bi di digal sàkku ci ndigal sax ci ay kilifaam te wóor na ko ne ko duñ ko wax déedéet ndax loolu lu tedd la sunna su rafet la di ko def di ko def ba ba yaramam naqaree mu tëdd sax mu nekk Amérique man mii bokk naa ci ñi nga xam ne jokkoo naa ak man ci téléphone dama day baas ba ma joxewoon daaw sax danaa joxe ren bu ko ëpp ñu ma daan toggaloo diw ak diw ak diw la sëñ daara ñaata lañ xam naa list bi waaye bu fekkee am na ci ñu yokk xaddi yi ma laan den jox itam danaa ko yónnee na mel nii rek maa ngi toog loolu laa bëgg dëgg yàlla bis boobu ba mu jotee bis bu rafet la daf ko daan def joxal leen ay ndogu defal leen ay bernde teg ci ay hadaayaam ak waxam yu rafet. xataa ba asal azhariya bii nekk fii di jàngale sax ci mahadal xaaj Abdoulaye Niass dun nañ daan bokk ci ñi muy oo eh, mu mel ni fonk na loo xam ne baayam fonkoon na ko maamam alaaj Abdoulaye Niass fonkoon na ko sëriñam fonkoon na ko ba tey di baayam di sëriñam Cheikh Ibrahima Niass baay fonkoon na weeru koor lépp daf ko daan dundal daf daan wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëm mi tabele woon waaye ci weeru koor daf daan mel ni ar reexul mursala mooy calluweer lu fekk suuf soo xam ne suuf su nooy la calluweer dugg lu am doole dugg ca gis ngeen dam koy yëkkatee mu ne noonu la yonent bi daan mel ci weeru koor ci joxe Baye Niass radiallahu anhu ci weeru koor lépp la daan joxe bañ na ko ba sax weeru koor ñaari ci la daan firi alquran dix heures lay génn di firi ba tusubaar di waaj jot ñaari xisib ba mu pare mu dugg néegam waajal tusubaar ñëw julli tisbaar jàng xadis del siwaat ci tàkkusaan wasifa jàng julli tàkkusaan ba pare jàllal bi ko ànd ak taalibe yi wasifa buy sikkari aju buy aj bisu ajjuma li muy dogee ci jumaa ji la koy fekk moom ak taalibe yëpp ñu ànd dog ñëpp barkeelu sax ci li bàyyi daan dogee bañ defe nañ ko sunna fim mu ne ñu bari ci jumaa ji lañuy ñuy dogee noonu la bàyyi ñes meloon loo ko laaj ci weeru koor mu jox la di ko dundal ci na taxaw ñun ci taraaweex yi naafile yi nekkul néegam tëdd mukk naan dem leen naafila ji moo ñu daan jiite moo doon suñu ilimaan ci waxtu yu juróom mooy jàngale xadis bi dafay taxaw ci naafila yi lépp Cheikh Hadi radiallahu anhu koo xam danga nga xam ne Cheikh Hadi taalibe bàyyi la woon dafa bëggoon bàyyi ba nga xam ne lépp lu laal bàyyi rek gone yu tuuti lañ daan ñëw sax ne ko ñëw la jël si tey suñu addiye mu boo ko waxee rek mooma doo ngi nii toog du ci teg li may wax du ci teg baat boo ko waxee léegi baat boobu rek lay tontu léegi haddee ngay laaj tey haddee haddee sama sëriñ ngay laaj boo ko xayma mu ne la léegi waaw moom du dama yónni ma sama saag ba mu ñëw indi cartabalam jox ko mu ubbi jox la amul benn wax nit ku baax nit ku tedd nit ku bëggoon yàlla nit ku bëggoon jaam yàlla yépp ci ñoom la baaxoon waaye nit ku fonkoon weer yii si wooy njar yi mu daan indi ci jumaa ji ba léegi corona bii fi nekk nii de yàlla ñu ko fi yàlla jëleel moo tax man xamatuma dara ci jumaa ji waaye ba daaw ci weeru kooru daaw buñ toogee ci jumaa ji di wasifa balaa timis a jot ñi ko daan indi danaa gis suñu jàppoo ko indi ko boole kook tàndarma ji ni ñu daan dogee te moo ko daan def moo ko defoon sunna ci këram ba léegi waa këram a ngi koy def doomam Cheikh Baye a koy def eh, mu mel ni nag xew-xew bi dem na ba egsi sax nekk na xew-xew boo xam ne fi mu ne international la ndax képp kuy soppeeb Sëñ Aadi bokk nga ci te soppee sëñ yi bëri nañ macha allah sëñ Hady képp ku bëgg ku bëgg lu baax rek bëggoon nga ko képp ku bëggoon yàlla bëgg nga ko kuy taalibe bàyyi ku ne bëgg nga ko ndax taalibe bàyyi yëpp luñ mës a xewle du ñéeb lu dara loo ko mën a wax tam jëm ci bàyyi rek te lu jëm ci bàyyi mooy lu jëm ci yàlla loo ko waxee rek mu jóg bàyyi mu jàppoon yëpp moo tax xew-xew bi dem na ba si mook bi muy def ci ngoon a gàmmu dem na ba nga xam ne mbedd mi mu ko daan kaw ba mu ko doon defee xajatu ci xajatu ci mbedd mi far ne de la région daf koy fekkee léegi préfet bu ville bu Kaolack daf koy fekkee fi mu ne commissaire central daf koy fekkee booleeg aayaani dëkk bi ñi nga xam ne ñëpp dañ daan ñëwal seen ñaar moom ñoom itam duñ wax mukk ne wan nañu gannaaw ñu bàyyi xew-xew boo xam ne moo ko sosoon gannaawam déedéet moom borom kóllëre woon maa ngi fàttali ko entre parenthèse gàmmu gi mujj a teewee ci Banjul booba mënatu sa dem waaye dafa maa oo mu ñëw mu ne ma gàmmu Banjul suba la ma ne ko sëñ bi yow mënoo dem mu ne ma Cheikh Nazir du fent bis fentaloon ko yàlla di ci taxawal guddi gi yonent yàlla Muhammad kilifaay dëkk bi yëpp tukki nañ maa fi des maa ngi dund nokkeen ci man ba léegi ma bàyyee ko ñu ne anam ñu ne maa nga yaram muy méttee tax demuma loolu daal res naa ko res naa moom àllaaxira mu naan ma suma bis bi ma taxawaloon ko nga nekk Medina bàyyee ko mu nara mu nara yàqu noonu mu ne mën nañ dem oto bi mu dugg oto lañ ko utal boo xam ne dafa tëdd ba àgg oto bi dafa arrière ba ci fauteuil bi muy toog ci gàmmo gi ñu dimbale ko ñu ñii ñëpp ñu jàpp ceeg moom ba taaj ko mu gàmm ko ba bët set mu taxaw wax lu leer ne waa Banjul maa ngi leen di tàggu o Assane Niass moomu di sikkar ne ko sikkaral ma leer sàngam ma tàggoo ko Banjul ñu dégg wax ñépp ci tànt boobu keroog dañ doon jooy ndax li wax noonu maa ngi tàggu Banjul del seetul Banjul kooku nag bis bii moo ko fonk ci Medina moo ko moo ko moo ko fentoon ci Medina yonent bi nag nee nañu man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi alqiyamati wa man sanna sunnatan sayiatan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmi alqiyama sunna su baax moom ko fi def fent ko bàyyi ko fi képp koo def sa gannaaw sax danga am yool bu am ni moom mi ko def te du wàññi ci yoolam dara waaye buy safaan ba itam bàkkaaram ki ko def bu am noonu da ko am te wàññi du wàññi ci bàkkaaram dara c'est-à-dire li mu def nii sunna su rafet la ci pays Medina Cheikh Ibrahima Niass yaakaar naa képp koo xam ne li bàyyi tabax ñëw nga jokk ci dara jëm ko def nga lu baax te moom def na loolu baayam bëggoon na alquran maamam bëggoon na alquran ay maamataaram yëpp bëggoon nañ alquran bëggoon na alquran c'est-à-dire foo ko mu a gis ci dëkk bi muy dox ci otoom wala muy tukki wala muy dem fenn boo koy nuyu dafay téye jukki alquranam ci càmmooyam jox la ndey jooram waaye buy dugg ci otoom rek moom jukki alquranam lay téye lu wax ak kenn ba àgg fi mu jëm néegam it noonu la daaw ko jàngal sax par suba ji ni ñuy def dafay tibb di jàng rek ba fu mu sonnee bàyyi noonu la woon bis boobu nag moo dellu si e dégg naa ñu ko bisu laylatul qadri laylatul qadri man xaw ma ko yonent bi nee na yàlla waroon na ma ko nëbbaat ma ko Ibnu Abbas nee yu bëri borom xam-xam yu bëri wax nañ ci nattale nañ ko waaye yonentu daal am na fu mu ñu cadré nee na iltamisuha fi l min ramadan laylatal qadri mu mel ni ut leen ko ci fukk ju mujj ci léeg ci weeru koor ñu noppi mu ne fi fi fi taasiatin tabqa fi saabiatin tabqa fi xaamisatin tabqa ci guddi yu tool yi ci fukk ju mujj ji naafila fanweer yëpp ñaan yàlla fanweer yëpp jéggalu yàlla fanweer yëpp ñaan yàlla li nga bëgg ci fanweer yëpp ak kii tase nga ak leylatul qadr Baye Niass moom daf ñu waxoon ne ñu dafa noppaloon nit ñi guddi gii moom di ñëw nii moom la nga ko mooy guddi gi ñuy gungee weer bu amaan da nga naan def naan dafay wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mi ngi ci kaset yi soppe baa ngi tàggoo muy weeru kor uute nag ñi koy bañ naan dañ koy dàqee ji ci ay dam yekki ba lóot dégg nga ak dem plage ànd ak ay gone yu jigéen déedéet moom daf daan wax ne soppe baa ngi tàggoo ñu ngi wax ñun ñëpp inna lillahi wa inna ilayhi rajiun weeru ngëneel weeru alquran nga xam ne ci la yàlla wàccee alquran guddeem ci goo xam ne juróom-ñetti fukki at ak nangam yow jaamu yàlla la yàlla nangu ko nit mën naa dund ñaar téeméeri at wala fa téeméeri at ak nangam waaye jaamu ci yàlla waa xamoon ndax yàlla nangu na ko mu nit bii yàlla mu ne nangu naa ko genn guddi googu nangul naa la ko arrondir naa ko def naa ko muy 83 ans virgule nit dund na sax te dundul juróom-ñetti fukki at ci lislaam mooy guddi gi nga xam ne boo ci defee nga neel yàlla bindal la ko farata nga def ci farata yàlla bindal la ko juróom-ñaar fukki farata mu weeru dimbalante weeru yërmande weeru jokk ak bokk weer woo xam ne su ma ci an buñ ci egsaan damay wax Cheikh Hadi mi ridwanullahi ne ko weeru koor ñëw na man sëñ bi bu weeru koor teroo rek ma ma tiit mu ne ma bas mbaaru da ragal koor ma ne ko yonent laf cee wax loo xam ne koo gisut sa bopp war ngaa delluwaat ci sa bopp chahrun yuzaadu fi rizqil mu'mini fii wërsëgu jullit def ci yokk kuñ or ba ori gisoo lu bees ci sa loxo boobu nga tiit yonent ko waxta du mbóosóor lu mu wax yàllaa ko wax e guddi googu nag mooy del si ñu ngi ziyaara Cheikh Hadi jaarale ko ci doomam bu góor Cheikh Ibrahim mi mu tuddee baayam sëriñam ak magam Fatimatu Zahra ñu ngi ziyaara seen baay ci bis bii óor nañu ne roxom dana dellusiwaat ci place bi ndax jëf ju baax jii mu fi jëmbatoon ñu ngi koy wax ne ko deewut yokku na sa gannaaw alhamdulilahi rabbil alamina e eh, doom ju baax nag loolu rek lañ koy defee doom loolu rek lañ koy defee bàyyi daf ñu daan wax nañu diine bàyyi yàlla nay jàmm waaye néew na bu ca doom muccee doom yi fecckat yi ay fecckat lañ yéen a ngi leen di gis ci télévision bi nit ku rungu ñu rungu njabootam taaj leen ñuy fecc doomi sàcc yi sàcc rek lañ bëgg a doomi xastekat yi ñu ngi fi ñoo ne ci réew mi di saaga nit ñu baax ñi doomi nit ñu baax ñit ni ñu baax lañ bëgg a dox loo tax Cheikh Hadi bàyyi fi bis bu mel nii Cheikh Baye jël ko ne li may doon doon gone ak gëgguma ci sama maqaamam Baye lim xamoon xaw ma ko lim mënoon mënuma ko waaye danaa jéem kuy jéem nag soo bawut da nga àgg war waaye ute waaye ku nekk ci yoon wi wàccoo da nga mos a àgg <coughs> ñu ngi koy ndokkeel moom itam di ndokkeel baayam ci bis di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla def mag yal na yàlla dëgëral taxawaayam yal na ko yàlla wattu bu baax yaa rabbi yàlla eh, lii rek la dëkk bi lii rek la ku sa baay baax jéem a la baax bul em ci rek so di wéy sama baay di wéy baay amul njëriñ baay mu ne wàjju lu baax fondement bu dëgër la waaye ku tabaxul teg ca bu tawee nga tooy bu naajee nga lakk mu ngelawee nga pënd da ngay tabax teg ca loolooy dëgg sëñ Hadi sama bàyyi sëñ Hadi fépp Saalum gii gépp fii ba Banjul foofu fi taalibe bàyyi mu sa la dara buy bànneex buy naqar da ko gis mu taxaw bu demee dana fa wax wax joo xam ne kenn du ci mën a teg baat da nga naan bu fi bàyyi ñes ñëwoon lii lay wax loolu nag képp ku muy sa bàyyi te ñooñu ñoo fi ne rek ñooñu ku ñuy say bàyyi dégg nga waa góor góorlu dégg nga seen seen seen seen seen seen i jàngale diiru seen baanaam ci sa kaw waaye fi bàyyi emoon te xamoo fañ dalee fan la te bàyyi ñes daf ñu daan wax nañu doom ju nar a baax ju ne déggu damoon bàyyam dana ko jam kon sunna yu baax yi fi bàyyi tëral bëri nañ wax dëgg yàlla waaye doom yi ñu jur seen gannaaw yàlla leen yàlla dimbale bañ topp ci dëkk bii nag dëkk bu mag la alhamdulilah yàlla def na fi jàmmam def na fi yiw def na fi teraanga waaye nag yàlla dafa am lu mu wax ci alquran yàlla bum ñu dal ida aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha yàlla bu ñu loolu dal waaye jooju yàlla na ñu sore sori ni ñuy waxee ne yàlla na fi corona jógee loolu it yàlla na fi jógee maanaam yàlla na fi jógee ñun yàlla bu mu ñu laal waaw bëri na ci doomi sëriñ si Baye Niass dégg naa ko ci benn kaset muy wax ne te bala ma koo dégg ci kaset fekkee naa mu di ko wax ñu ngi sant yàlla bi yàlla amul doom bu yàlla doom xama fu ñu jëm lislaam bii li ci nekk ci ay rëq-rëq ak i tilim ak tilim tilim te doomi sëriñ see ko fi def bu yàlla doom xamu xamuñ fu ñu jëm te kat xormaalu ñu leen luut sa baay nit ku baax la woon wala sa baay wala sa maam la woon loolu rek la ñu leen ñu nekk fii cëpp-cëpp ji mel ni jàmma jàmm maanaam ñu ngi sant yàlla bon bi yàlla amul doom bu yàlla amoon doom kenn xamul fu ñu jëm ko wax ma ne suma jaam nga bon ndax sama jaam bàyyi nga eh, maa ngi leen di ndokkeel yéen itam ban kii la ban chaîne ngeen bëri ngeen yéen ñi bëri maa ngi leen di ndokkeel <laughs> yéen ñi nekk ci Medina di di di couvrir évétement yi fi xew yëpp buñ jullee àjjuma ngeen tànn nit laaj ko ne ko xutba gi tey lu mu wax bu koor amee ngeen def ko bu tabaski jotee ngeen def ko bu gàmmu jotee ngeen def ko fukki fan bañ gàmmoo ngeen continuer di ko def bañ gàmmuwaat bu ziyaara jotee ngeen def ko eh ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi leen di gërëm doom yi pay bi ngeen Omar wañ ñi ngeen jiite wax dëgg yàlla eh yi Medina la yéen it doomi Medina ngeen kii maag baayam ñoo bokkoon daara di jàngal Quraan mu baax waaw ah, ca Medina gu njëkk ga la waaw dund fi ba génn àddina yàlla ko yàlla yërëm kenn xamut ci moom lu dul Mamadou wañoon noppi moo yaru moo baax moo mënoon moo déggoon ndigal li ngeen def nii wut ndax balligu an nii walaw aaya la yonantu wax na ngeen toxal jëlee ci man di lee jenn laaya la wax ni ñu baax ku ngeen yaakaar ne mën naa wax lu baax rek yéen dangeen ko seet ci Medina bu ngeen boo waxee ngeen tasaare ko lii ngeen jël nii tey àddina yëpp koy seetaan wax dëgg yàlla fi wax ji nar a àgg man mii sama tànk bi demagut fa te mënuma faa dem taluma ko fi mu ne sax màggat la waaye wax ji dana fa dem maa ngi jéggalu nag ci lépp rëq-rëq bu ci nekk in in urid illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah tawfiq moom yàlla rek ku koy joxe moom rek laa bëgg nag maa ngi ndokkeel ñëpp maa ngi gërëm ñëpp maa ngi ñaanal senegal gi jàmm maa ngi ñaan yàlla jaay xab yi ñëw ci addina bi nga xam ne tubaab yi ko yi koy jiñante ñoomu neen seen biir sax tëna leen xamuñ nuñ ciy def yàlla ci yàlla musal alamul islam yi yal ci yàlla musal alamul islaami suñ xaar rab bii nga xam ne ñooy ñooy mba ñoom adduna bi yëpp dañoo jàpp ñooy seen mbalit même déchet nucléaire sax suñ ko amee suñu réew yi lañ koy suul si ñu sànni ko suñ géej gi eh ñu ngi ñaan yàlla ñun yàlla rek lañ am amuñ leneen ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu ci yàlla musal ndax tubaab lañ ay tubaab bañ ñoo ñu amee ba léegi wax dëgg yàlla tubaab yooyu ñu amee ba léegi baaguñ ñu gannaaw baaguñ ñu nag ñaan yàlla musal ñu ci seen waay waaw te lii bi mu xewee digg naa coow yu bari xew ci ñu bari wax ci nit ñu bëri polémique nañ ci jaru ko woon nag jaru ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi waxoon boobaag léegi di di di junnee attaque nangam ne yàlla defal na ma suuf defal ko suma xeet sama xeet ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla defal nañu suuf mu laab di jàkka bu jiyee amee boy wër àddina bi xifzu nafsi awla dañuy wax ne sax jëga dab waxtoo gën dab laab julli jotoon sax amoo ndox ñu ne doo fi xaar fi naan bu ma àggee ci dëkk sangam am ndox ñu la jullil ci waxtu wi sakkantumaa bakkani doomu adama nag nga xam ne yàlla daf koo fonk ba ne ko dundal dundal benn bakkan dundal nga ñëpp ku rey benn bakkan rey nga ñëpp wa man ahyaaha fa ka annama ahya annaasa jamian ko rey mel na ni rey nga àddina bi yëpp bakkan boobu lépp lu koy lor képp ku taxaw wax ci wax nga dëgg lii jaay xala tudd Seydina Omar ibnu Xataab kenn ci ñun aggut ci ngëmam aggoo ko sax ci we lii ñuul ci weem te di géwantu def gis ko sax gis defoo ko ci mbaaxam yonentu ne isa salaka omaru fajjan salaka cheytaanu fajjan axar ku yonent ku yàlla ku yonentu yàlla Muhammad wax ci yow loolu boo jaaree ci yoon sax seytaane seeti weneen yoon moom muy jaar seytaane sax lu bokk ak Seydina Omar yoon keroog ba mu tuubee yonent tuddee na ko alfaaruq gis nar keroog lañ tàggaloo ci ngëmam ci dëggoom ci bëgg yonentam bi ci topp yonent bi sallallahu alayhi wa jub na dëkk ñu ne ko jaay xaafa am Abu Ubayda ibnul Jarraax mi ngi ci mbooloo mi mu ne nañ jëpp te boobu mooy xalifa yonent bi atafirru min qadarillaahi lañ ko wax wa qadaa'ihi mu ne afirru min qadaa'illaahi wa qadarihi ila qadarillaahi wa qadaa'ihi yonent wax na te waxam moo gën sama wax moo gën waxi ku moom ne bu ngeen ko déggee ci dëkk te fekk yéen a dugg leen fa bu leen fa dugg bu leen fekkee ca biir bu leen génn waa taw na ci Medina rek taw boo xam ne dafa ànd ak lëndëm ak ban rek mu ne Bilaal taxawal ci kaw jumaa ji nga eena na sallu fi rihaalikum na ku ne na julli këram ki julli wàcc ci moom moo wax loolu ba tax bi yëpp jaru ko maam Cheikh Tidiane Cissé wax na ko coow li ñu ko ci gàddu ñëpp ngal-ngal ji ñu dem kati jumaa ay jaamukati yàlla dégg nga ay affairiste jaamu yàlla kenn waxuñu ne bu leen julli ñu ngi julli ñu ngi julli ci suñ kër yi waaw bu lii jeexee ñu demaat dundal jàkka yi kër gi jumaa la al ardu kulluha milkun lillah chibre bu yàlla moomut ci suuf lépp jàkka la dañ gëm loolu maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin kullu amin wa antum bi xeer yàlla ñu ko fekkee na gën déwén yàlla ñu yàlla boole ci xaaj ba koy or déwén liñ ci or nii awaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa axiruhu itqun min annaar yàlla ñu yàlla boole ci utaqaa yi nga xam ne dañuy goreel ñun ci safara yàlla ñu yàlla boole sax ëllëg ci àllaaxira ci nga xam ne ku leen gis sax gore yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu liñ ci oor yàlla na ko yàlla nangu liñ ci dundale lum tuuti tuuti tuuti ci lu baax yàlla nañu ko yàlla nangul te fulal ñu ko ci jëmmam ci kam jëmmam ja liñ ci juum li muy bëri bëri yàlla nañu ko jëggal yaa rabbi ya allah lépp yëngatu yeeg daal yëpp ngir moom rek la woon moo nañu suumu sum naa ooruñ pour kenn nag moom rek lañu ooral amul diw oor naag Saudiya oor na ñun si ñoo nekkul Saudiya chahru ramadan bii Saudiya moomut ko keneen moomut ko bu bu feeñee rek ñun ñu or bu feeñee ñu ori iqtidaan dégg nga ñu ngi roy ñun ci loolu suñ sëriñ mi nga xam ne yonentu yàlla Muhammad la topp ci gannaawam di dox dem ba àgg moom da ci ida saara xayru naasi sirtu waraahu wa in xalla fal fal masiru baidu kooku mbiram leer na bàyyam walu yu la borom xam la mooy sëriñam moo ko jàngal benn sëriñ jàngal ko benn xaraf waaye bu yorantu doxee ma dox la wax ba mu doxee di dox di dox ba gis ne yorantu daf daan julli di teg ñaari loxoom ci kaw dënnam jiital loxo càmmooyam jël ndeyjoor bi teg ci kaw daf koo def bañ na ko laajee ne ko sa baay daf daan yor ay loxoom mu ne waalidi qayyadahul waraaw atlaqanil ilmu sama baay dafa fegu woon ba du jaamu yàlla ci masala mu ko leerut man xam-xamama tinki kookooy suñ sëriñ boo yor feeñee ñu or bu feeñee ñu ori tënkuwuñ ci kenn nag niru niru wuñ kenn royuñ kenn éemuñ kenn suñ sëriñ rek lañ topp ci kaw gan. waaw ñu ngi lay delloo nuyoo ñu nga waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu yàgg fariq bi nga ànd ak dimbalante ak <coughs> ci liggéey bu sell bi. aoudu billahi min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi din iyaka na'budu wa iyaka nastain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 wa taxtifi bi nadratin tati bi zafari ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan di ñu déglu ci gox yu fasantikoo ci àddina bi fu mën a nekk nuyoo lislaam mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di jiital ci nuyoo boobu alxalifa almuazam saydi wa mawlaaya cheikh ahmad tijaani in mawlaana cheikh alislaami wa saadil anaam xaaj ibrahim ñas radiallahu anhu suñu ko nuyoo nuyu nañ mbooleem ay rakam eh, ñu ngi nuyu Seydi Faatimata Zahra mi nga xam ne mooy seen mag ñoom ñëpp moom it buñ ko nuyoo nuyu nañ mbooleem ay rakam di nuyu al imaam al akbar Seydi Mawlaaya Cheikh Ahmad Tijaani min Mawlaana al Xalifa Seydi Alin Cissé di nuyu al mutahaddis rasmi bismil hadra al ibrahimiya Seydi Mawlaaya Cheikh Mahamadul Maahi Aliou Cissé ñu ngi leen di ci weer wu tedd bi comme ni nga ko waxee muy weer wu màgg euh, am ci guddi gu màgg dale nga xam ne weer wi lépp achahru kulluhu azimun waaye mu am ci guddi goo xam ne guddi guñ tànn la muy guddi gu tedd di guddi gu màgg euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digguñu ci lu bare bare bëri yàlla digguñu ci lu bari ci ay ngëneel muy layatul qadr waaye balaa ma sori ci nuyoo yooyu maa ngi nuyu usratu almarhum euh, sayidi walaaya Cheikh Mouhamadul Haadi ibnu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass maa ngi koy nuyu di ko ndokkeel euh, di nuyu doomam di taawam bi nga xam ne moo taxawee lii tey gannaaw baayam mook ay bokkam yëpp nag ak ay wëlëre baayam ak ay xariti baayam ak ay taalibe baayam foo ñu mën a nekk ci biir Sénégal ak ci biir Sénégal euh, muy Cheikh Baye Hadi di nuyu Zahra mi nga xam ne mooy seen mag muy itam euh, moo ko nuyoo nuyu naa leen ñoom ñëpp may nuyu mboolem ay soxnaam te maam Astou di seen mag mu yaay baay di nuyu Khadija euh, ñu gën koo xam ci Dija moo ko nuyoo nuyu na Jatu Dem moom itam. nuyu Seyda Magan Ndiaye nuyu itam euh, Alimatu Traoré ñooñu ñoo nekkoon ci ci ronam di nuyu mboolem doomi sañ aadi di nuyu mboolem ay muqaddamam ak ay taalibeem ak ay soppeem fu ñu mën a nekk e, bés bi nag sañ aadi moo ko taxawaloon ngir yàlla rek nag e, doon ci teral alquran alquran tedd na ba bare waaye bu ma ne teral alquran mooy teral ñooñu alquran te ñooñu alquran mooy ñooñu yàlla yonent sallallahu alayhi wa sallama recommandé ne na ngeen teral xamalatul quran ne képp ku leen teral man nga teral te ku leen teral yàlla nga ma teral yàlla nga teral sëriñ Adi bés bi li ko yëkkati woon mooy dajeeg jàngkati alquran yi ñu bokk ñun ñoom jëm ñëpp nafat téere yàlla bi Eh, jàng ko suñu paree mu defal def ay taraanga yu rëy defal leen ko mu doon lum fonk lool nag moom mbooleem ñu ko ci doon jàppale ci biir Sénégal ak ci biir Sénégal fonk ko lool eh, naka noon itam daan na ci invité institut islamique muy maat bi asatise yi nga xam ne ñoo ci nekk bàyyi ko Misra ak sénégalais yi nga xam ne ñoo ci nekk ku demee ni oustaz Baba Agne demee ni Euh, oustaz Ndiaye ñoom ñëpp daal Nazirou Niang ñoom ñoo ñëpp ñoo ci daan jàpp di jaay palanteer ñooñu waaye itam ñu ngi fàttaliku ci occasion bi euh, Serigne Daara Cheikh Biteye moo doon coordinateur bi daara yëpp moo ko daan coordonné li ñuy jàng ci kaamil yëpp ci loxoom la daan jaar mu amoon ci itteel lool moom itam ju day ni ci sëñ aadi am ci jàppalante ak moom mosu ko absenté yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko alxuraan fay fa nekk moom itam yàlla war a nekk ak sëriñam ñu ngi koy fàttaliku daay moon ci munaasabaat yi mel nii eh, bés bii bés bu màgg la woon ci sëriñ Haadi waaye bés bu màgg la ci jullit ñëpp ndax alxuraan jullit ñi amuñ lu mooy alxuraan eh, sëriñ Haadi pour wax rek ite ji mu joxoon bés bii am na jamono sax ci jamono yu mujj yaramam naqari mu nekk États-Unis di faju waaye def ko ittewoo ba nga xam ne jokkoog ñi nga xam ne tey ñoom la ko tegoon ci seen loxo muy euh, ku demee ni tey Cheikh Baye boobu ma wax ne Cheikh Tidiane bi euh, Serigne Daara Cheikh bi tey ku demee ni ñoom euh, oustaz Kéba Thioub Baye Bara Marab Awa Baye Ndongo Ñang dégg nga ñoom ñëpp ñi tam ñëpp ak xale yi nga xam ne ñoo nekk këram ak njaboot ak bu fonk ñoom ñëpp ñu di ci jàpp Imaam Seydou Cissé dégg nga nekk na Amérique googu di faju mais waxtu wu ne minute bu ne mi ngi jokkoog mi ngi jokkoog Medina. ci organiser affaire bi def ci sax de plus lim ci daan def ci teewaayam ba mu am réussite boo xam ne te moo ëpp sax lim daan am ci teewaayam noonu la ko tolloon waaye itam ñu ngi gërëm Cheikh Baye nag di ko ñaanal ndax euh, ku yokku yaa wàññi te lii ci itteem ak góorgóorlum ak fonk kóllëre fonk lu baayam fonkoon te loolu waru waru gar la ci doom ju baax fekk sa baay fonk lu baax nga fonk ko wax dëgg yàlla eh, bu fekkoon ne baayam eh, benn étage la fi fekk eh, bàyyi woon moom yóbbu na ko bam ba ci quatre étage wala xëy na wala cinq moo tax ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk fanam yàq yàlla gën koo dimbale moo mbooleem nag coloré baayam yi nga xam tey ñoo koy jàppale ci lii parce que du moom kenn rek eh, ko demee ni ñoom Mamadou ñoom Ibrahima jànq ak ñoom ñoo ñëpp tey ak Seydou bi ma wax lii ñoom ñoo ñoo daan méngoo yi ci biir biir liggéey bi ci ci kër sëñ Aadi gannaaw ñeneen ñi ma tuddoon muy ñoom suñu ne yaay alaaji baram awa de nga Keba Cuubu ak Baye Ndongo bari nañ euh, ba ci jigéen ñi sax ku mel ni rakkam Seydaan Day Ayda seede na fii sa nga xam ne koo xam-xam nga sëñ aadi yàgg nañ lool euh, moom itam mu am ci taxawaay lool di jàppal jàppalanteeg sëñ aadi sëñ aadi nag waxtaanee ko jafe na yomb na puisque dafa nekkoon li ñuy wax euh, multidimensionnel booy waxtaan sëriñ Hady da ngay waxtaanee sëriñ ak alquran ndax moom ngay waxtaanee déedéet ndax da ngay waxtaanee sëriñ Hady ak ak bokk déedéet ndax dangay ngay waxtaanee sëriñ Hady ak taxawaayam bi mu am ci jaami yàlla yi nga xam ne amu ci xej seen dégg nga déedéet da ngay waxtaanee sëriñ Hady ak relation diplomatique bi nga xam ne amoon na ko ak mboolem euh, administration ak ak kilifa yëpp. rawatina kilifaay diine yi buy taatul mashaayix yi ci réew mi tey te mu am ci yu bari yoo xam ne man ànd naa fa ak ñoom ma gis moom fiñ ko teg ngir ouverture ngir diplomatie ngir xelam moo rafet fa booy waxtaanee ak say aada ndax da ngay waxtaan ci loolu eh, bu déedéet alquran ji nga xam ne nag moo waral bés bii tey muy laylatul xadar bi nga xam ne ci la daan dajeeg jànkati alquran yi lu ne la ko jaraloon utte ju ne la joxoon Euh, lu ne la ci daan def te moom balaa oo nit ñi ci ñëw leen ñu bëgg alxuraan sëñ Adi boo ko buggee gis muy jàngal waxtu boo ko buggee gis jàngal alxuraan rek da ko fekk muy jàngal alxuraan mu nekkoon jaamukatab yàlla bu mag boo xam ne mboolem yi yàlla santaane ci lu baax loo ci fekk sëñ Adi rek moo ci man ñëpp baagee diggante jàkka ji ak këram kenn mënu ko ci di teewe gee wasifa yi bu fekkee da ngay waxtaanee sëñ Adi ak fonk ay wajur man dama dund ak moom lu bari ci kanam baay ma gis ni mu nekkee woon ak baay jàppee wutoon baay baay daf koo jàppee woon moom sëriñ la ko defoon nekkoon nekkoon alkaati nekkoon soldaar ci wetam bu jógee mooy nekk garde corps dafa daa wax mu ne mu ne waaye seexoo seexoo bëgg alaaji maanaam alaaji Abdoulaye seexoo bëgg alaaji waaye aadi Mariama bëgg seexoo <laughs> loolu yëpp pour wax la rek ne moom boo képp ku bàyyi bëgg rek bëgg na la waaw ku bàyyi bëgg rek bëgg na la njabootu El Hadj Abdoulaye Niass gu mag yëpp waa kër Maam Alaaji ñoom ñëpp sëriñ la leen jàppee woon loolu ba tey dafay dellu ci rek xam bàyyi moom lépp lu baay fonk rek fonk na ko lépp lu bàyyi fonk rek fonk na ko xam nga jotul Maam Alaaji waaye comme dafa jege woon bàyyi xam na baay wàcce waaye bi mu wàcce woon baayam non seulement baayam la waaye dégg baayam la waaye mooy sëriñam te loolu moo ko wax moo ko wax boo ko bind siyaar bi mu xamee loolu moom itam lépp lu tax ci Alaaji Abdoulaye rek wàccuwaay boobu la la wàccee moo xam fii nga nekk ci Medina moo xam lew na ñeseen nga nekk xàmmeewu leen waaw mu amee nag jikko yoo xam ne jikko yu yëkkatiku yu koowee koowee koowee koowee yi yonent wax ci jikko yu rafet yëpp boo ko seetee ci yi da nga koy gis ci moom moom portale bàyyi la dégg nga suuratan wa maanan waaw doo jikko ji ngay tàggoog moom tey dégg boo ñëwee ëllëg itam jikko yooyu nga fay fekkaat ngay fekkaat ci moom wala ñu ko na a kowee doon ko am njariñ lool ci jaami yàlla yi doon ko bëgg taalibe bàyyi lool wala mbindeef yëpp waaye yërëm taalibe yi lool am ci ñoom itteel lool képp ku ci am problème bu mu mën a doon moo xam ci administration la wala naa dootul lekk dootul naan lu problème bi réy réy réy nag ko boo agsee ci rek moo ko ci te du yem ci du problème de dafay jok sol dàllam waaw lum laaj rek dana dana ko def pour nga am jàmm yow moom du am jàmm tant que amoo jàmm ci loolu la ne woon te loolu bokk ci jiko yi yonente santaane sallallahu alayhi wa sallam ne man lam yahtam bi amril muslimina fa laysa minhum waaw moom istibaam boobu la joxoon loolu nekkoon koo xam ne ku nangu ñaan la woon soxla bu dugg ci noppam bii yàlla dana ko faj man loolu xam naa ci dara moo tax euh, taalibe yi mbokki taalibe yi nekk ci biti États-Unis ak Europe ak nangam nangam nangam surtout suñu mbokki Gambien yi gis nga cër bi mu amoon Gambie ni mu bëggee woon Gambien yi ak ni ko Gambien yi bëggee woon boo jëkkee ba 3 heures du matin 2 heures di matin boo degee car téléphone ne car rek xamal na ñoom la <laughs> waaw te xam nga ñoom euh, yiñ nekkee foofu ci biti am na ci yoo xam ne ñëpp <laughs> dañoo dañoo xaw a doy waar ay problème yi wax yu délicat yoo xam ne léeg-léeg nga gis koo xam ne dañuy wax dañ koy wax naan ko dañ ko dañ ko atte nangam nangam naa waaye bu ko waxee mu ne non noonu la ko yàlla defalee ci ci barke Baay ay problème yu bëree bëree bëree bëri yu mu réglé ci yooyu réew mii ay problème yu bëree bëree bëree bëri yu mu le réglé parce que yàlla dafa defoon yàlla daf ko tàggataloon administration ndax Baay daf ko daan sant liggéey ci loolu ta xam nga Baay euh, lum lay lum lay sant rek euh, nga di la ko def loo nga mbootam la cee njëkk dugal. dégg nga njëkk loolu loolu la ko liggéeyloo nga xam ne doo ci échec mukk ci àddina noonu la meloon jaxasoo gouvernement bi lool lool lool lool am ci ñoom cër lool nag ci ñëpp nag ministre yeeg tout ba ci administration locale yi ñaar fii nii dégg nga ay ay gouverneur ak ay ay douane ak ay police ak gendarmerie ak tout lu mu soxla ci ñoom rek awul benn muskila waaw tribunal yeeg yëpp yàllaa ko defaloon loolu mu naan ku baax lool nag moom itam ci ñoom am ci ñoom lool am ci ñoom taraanga bu mat sëkk noonu la meloon euh, diggante moog Mauritanie naari gànnaar yi muqaddam yi muqaddam bàyyi yi nekk Mauritanie ak taalibe yi daf leen a bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg ñu bëgg koo bëgg bëgg ba nga xam ne euh, bu doon tey mi ngi fi tey waxtu wii tey dégg nga boo waxtu wala ñu ngi këram bu ñu bu ñu xat naafela ba pare dañu fees dal ci kaw terrasse bi waaw bu leen gisee amatul jot ak kenn amatu amatu kii suñu nijaay alaaji baram awa oh, moo ko daan wax ne ko <laughs> ko daan ree toujours maag maam bas ci loolu <laughs> bu nekkaan ci naar yi bu ko fekkee ci naar yi da foog naar la moo gën a dégg naar naar yi dafay ne si ñoom di wax rek di wax rek léeg-léeg bàyyi baraam ne ko haadi haadi baal naar yi te wax ak ñi ci waxal ak sa ban naar yi ngay waxat <laughs> cest à loolu yëpp bëgg gum bëgg ndit de bëgg gum bëgg bàyyi wax naa ne lépp loo xam ne lu bàyyi bëgg rek la mu nga ca loola moom noonu la meloon maa ngi fàttali ko sax ndeysaan suñu benn eh, mbokk taalibe xaritam la woon lool di taalibeem man barke dem rek laa yëg na gaañu rek ñu ko wax dindu moom itam bés bii mosu koo uute mosu koo uute daf ko daan teewe toujours ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm eh, sëriñ Adi nit ku nit ku nit ku doy war la nit ku nit ku nit ku jafe la ku ku baax ku bëri yërmande ku bëgg lu baax te gis nga mbaaxam googu wolof damay wax ne yow bu fekkee ki nga xam rek ngay baaxee baaxagoo wala sa mbokk rek ngay baaxee baaxagoo sa yaa di mbaaxam gi dafa law gis nga suñ masaana ànd moom dem dem dem dem Gàmbi ci conférence yi wala nangam gis naa ko ba tàyyi eh, am na ñoo xam ne sax dëkkuñ ci kër gi ajuwuñ ci kër gi waaye ay commerçant lañ ci biir Kaolack ak yooyu buñ xamee bés bi muy ñëw rek dañuy ñëw kaarang dañuy jënd lu leen neex teg ko ci ay ay ay sept place waaw man te moom benn saako suukar du ko am ci li ñuy indi lu mat fukki sept place yoo xam ne dafay duy duy duy ba fees bu ñuy egsee këram rek li lay xamal ne la ñuy ànduñoon ci comme waaw bu ñuy gaaree buntu këram ak yooyu rek nga gis ñu départ ñaaw nii ñaaw nii duñ ko wax jërëjëf sax <laughs> gis naa ñu ànd ak moom ñëw dégg nga ku ne. ku ne jënd lu jeex ñi jënd ay saako suukar ñi jënd ay kees yi tamaate ay nagam ay nagam biñ ñëwee pour lu mu bàyyi këram ci ñi indi woon kii ci la ci la jëndaat suukar ci ñoom pour lu mu bàyyi këram wallahi ñu ngi ci koor xoolal loolu benn saako suukar sax boo xam ne moo ko moomal fam néew ci te dañoo eb ay oto ba mu jëndaat ci ñi indi woon suukar lu mu bàyyi këram ak tamaate waaw euh, bu doon nit koo xam ne dundi buur sa ñaari mu mu ñàkk ak mu mu amunoo ko xamee ndax dundam du soppeeku dund buur lay dund waaw moom euh, macha allah gàtt bër bu set nangam nangam garaar te limo ndox moom du ko naan limonade rek suñu masaan a toog bu ma nee bi dama ana ana Ibrahima jànq ana Mamadou kaay dem indi indi indi limonade ma bi limonade du naan ku mar ndox ngay naan waaye moom jàpp na warta naan ndox. <laughs> nit nit la koo xam ne ma dimension bi ko yàlla yëkkati woon dégg nga ci mbaax ak ci fonk doomu aadama ak teral doomu aadama te noonu la meloon ci kër diine diine yëpp wallaay noonu la noonu la parce que dafa xamoon baay ouverture bi mu amoon ci baay moom dafa séddale woon boppam l'islam waaw noonu la meloon ci kër diine yëpp sëñ Abdou la meloon boo demee Touba da ngay foog ne fa la dëkk man ànd naa moom ba taay dégg nga ci jamono sëñ Abdou Lahat laa ba njëkk ànd ak moom ànd naa fa ak moom ci jamono sëñ Saliou ma ba gis fiñ ko teg ak fi leen teg eh, sëriñ Abdou Aziz moom benn la ñoon moom moom maa ngi fàttaliku man sëriñ Abdou yoon wi fi mujj ñëwee xam nga sëriñ moom danaan ñëw rek dañuy toog rek ñu ne sëriñ Abdou ci xabru ba waaw su ko defee ñu daw ñëw fekk fa yoon bi fi mujjee ñëwee bi muy bi muy bi muy génn ndeysaan keroog sëriñ Adé ko jàpp nii bi muy wàcc nii dimbali ko mu jël mu jël mbagam mu loxoom ndeysaan loxoom bu tedd bi teg ko ci loxo ci mbaggi sëriñ Adé mii sëriñ Adé dimbali ko mu dugg ci yoon mu ne amatuloo bàyyi <laughs> lii la ko wax lii la ko wax keroog sa sa yooyu eh, sëñ Aliou moom li ñuy wax ci moom kenn mënu ko jeexal wax dëgg yàlla di la koo xam ne ñëpp a ko gërëm nag ñi nga xam ne ñoom la bokkat Cheikh Ibrahima wax naa la ñu mbokkat El Hadj Abdoulaye ne ci kenn noonu la mel ci biir kër baayam dégg muy El Hadj Abdoulaye bi nga xam ne moo moo doon moo doon eh, seen mag di di di di di taaw dégg nga lu nekk la ko nanguloon dégg nga gis nga gàmmu yi itte jim ci daan def ci tànt yeeg ci nangam nangam méngoo gi mu ko daan méngoo eh, te loolu ca jamonoy bàyyi la gannaaw bàyyi changé wu ci dara waaw gis nga bi fi bàyyi di nekk lépp moo koy méngoo ba guddi bu bàyyi lalee gàmmu boo gisee mu mën a gàmmu du moom bési bési gàmmo bu bàyyi léeg-léeg gàmmo moom moom ba bàyyi ne ewi naa leen amul genn amul amul benn jotaay benn jotaay gàmmo bu muy absenté lépp mi ngi toog ci kanam bàyyi lépp mi ngi toog ci kanam bàyyi loolu tax euh, mi ko yàlla defal ci mën a gàmmo di mën a ci gàmmo jafe na waaw la du du du jóg mukk ci àddina fekk bàyyi ngi toog ewi naa leen rek moo koy moo koy moo koy yëkkati moo koy yëkkati noonu la mel noonu la meloon te noonu li gàmmo gi laaj yëpp nag ci euh, toppatoo gan ñeeg nangam nangam ak ñëpp dégg nga léppam lu koy jox noonu noonu la meloon fonk mbooleem magam yi fonk mbooleem rakkam yi rakkam yëpp wàccuwaay bàyyi leen wàcce woon soxna bàyyi yëpp dégg xam xàmmewu leen ak ak ak yaayam waaw sëñ Cheikh mii tey nga xam ne mooy xalifa tey yàlla yàlla yàggal fii taxawaayam lool yàlla may ko wér dana wax toujours nañ ko ñaanal yàlla ndax mu yàgg ci suñ biir ci ñun la baax waaw ci ñun la baax dañ koy ñaanal yàlla loolu yàlla may ko mu yàgg suñ biir yàlla may ko wér dégg nga yàlla defal ko taalibe yëpp réew maa ngi ci ci ci ci jafe-jafe balaa nag li ñu jëloon di wax nee na nee na rek koy indi waaye tuub rek koy yëkkati itam waaw bon xam nañ comme xam nañ li ko indi te xam nañ itam li koy li koy li koy saafara d'accord lii docteur yi wax nii d'accord nañ ci ko waaye ñun balaa ñuy tënku ci lii nañ dellu ci li ñu doon wax. waaw nañ nañ nañ nañ tuub nañ nañ jégalu yàlla ñu ngi jégalu yàlla eh, di ñaan sëriñ bi làmmiñ ma a barke suñ làmmiñ mu jégalul ñu yàlla te bu ko ñaanee yàlla dana ko def yàlla yëkkati ci réew mi dalee ko ci Médina gii dalee ko ci Kaolack gii ñu nekk dégg nga dalee ko ci Sine Saalum gii nga xam ne bàyyi daf ko fonkoon lool jëlee ko ci lépp waaw daan na wax ne lépp lu nguur di séddale Saalum Sine Saalum ñooy mujj am te ñooy gën a néew ci waaye lu yàlla séddale nag ñoo njëkk am te ñoo ëppale loolu doy na bon loolu na ndax li tax doy na mooy daf daan mu ne képp ku am yàlla dégg nga ñàkkoo dara waaye ku amul yàlla nag amoo dara waaye kom ñun alhamdulilah loolu la wax te xam nañ ne loolu mooy dëgg fekkee naa fii benn benn at mu ooral lool lool lool gi métti lool yéex a taw ñu jàng ay kaamil di baaw naan def lu ne mujj gi réew mi yëpp tekkee ko di taw di taw ba des ba des Kaolack ak li nga wër ak kii yooyu ñu julli tàkkusaan bàyyi euh, war def benn waxtaan bu gàtt ne wax nañ ma ne ma li ëpp ci réew bi taw na waaw ba des Kaolack waaye loolu xadis yonent bi la ñuy fàttali yonent na saaqil xaw mi aaxiruhum shurban waaw loolu nag junj la nga dégg nga déggee ci yow lu bëri yow loolu loolu loolu la wax keroog loolu comme comme comme comme mi ngi fi mi ngi suñu biir euh, jàmm rek ci la ñuy nekk incha allahu taala natt rek mën na ñàkk. comme ni bàkkaar koy waral waaye bàkkaar itam rek koy yëkkati eh, ñu ngi tuub ñu ngi jégalu yàlla di ñaan yàlla yàlla yëkkati ko ci bi yëpp yaara bi ndax feeg mi ngi des fenn rek li ma laaj Abdoulaye daan wax ne musiba feeg yaa ngi koy dégg mu cëgoo ci yàlla ko yàlla yëkkati ci àdduna bi yëpp ci barke yonent bi yàlla yàlla nangu suñ koor sa yaa daal wax daal wax yàlla wax ci moom yombul comme li ma ko waxee parce que doo xam fooy duggee ak fooy génnee waaye daal nit ku fonkoon eh, ku fonkoon li baayam nekkoon la te loolu doy na mooy lépp bàyyi ma fonk lu dul yonent bi fonk lu dul islaam fonk lu mooy jullit ñi lu jara fonk rek la bàyyi ma sa fonk sa yaa nag lépp lu bàyyi fonkoon rek fonkoon na ko ñu ngi dalee du ndokkeel Cheikh Baye di ko ñaanal yàlla eh, wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla eh, rusloowut rusloowut ñu ñun ñi nga xam ne yàlla defoon na sa yaa di di suñu soppe di suñ sëriñ ñu jege woon ko lool eh, xamoon nañ lenn ci ay bëgg-bëggam gisee nañ Cheikh Baye li mu nekk nekk ndaw parce que bari na fi ñoo xam ne tey am na ñu bari ñoo xam ne seen baay eh, bàyyil na leen bàyyi na leen étage dégg nga waaye dañ waaye dañ ko dañ ko maabu dañ ko am na am na fi waaye nag yow sa baay bàyyi la benn étage nga fexe ba def ko ñetti étage ñeenti étage te eh, loolu li ko ci dimbale mooy nangoo nangoo diisoo ak jàpp ñi baayam nekkaloon loolu xam naa ko ci moom ite wóolare baayam yëpp am na ci ñoom itte waaw xew wi bu jotee kenn ku ne ci ñun mooy sol dàllam ñëw ba agsi ànd ak Mamadou dégg nga wala mu ànd ak keneen ci bi mu ñëwee man démb ndax barki démb di ma ko wax daf ne Mamadou dafa am fu ma ko yónni moo tax am ànduñ waaye ñàkk naka jekk ñoral ànd di ñëw dégg nga loolu nag te ni ma koy yëgalee noonu la koy yëgalee ñëpp duñ tëj mukk na lu euh, ñu ngi ndokkeel Abdou Barham Abdou Birane nekk ku ne sañ aadi ne ndukumaan waaw moom itam xam nañ diggante moom sañ aadi xam nañ diggante ndukumaan ak sañ aadi fa mu fekkoon Ndoukoumane ak àndoo ci yàlla dégg fi mu leen indi ñu ngi koy ndokkeel ñu ngi ndokkeel Abdou Wilane bi nga xam ne tey mooy jëwriñ ju jëwriñ ji gën a mag boobu ci ñu ne woon ci wetu Sëñ Hadi ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñoom ñëpp nañ koy ñaanalee mboolem jullit ñi yàlla yokk seen taxawaay ñu ngi leen di ndokkeel ci bés bi waaw moom ak ñoom Talla Wilane ak ñoom Daam Kaak ñoom ñooy ñëpp xam nañ leen bu baax a baax a baax ci wetu Sëñ Hadi ñu ngi sant ñu ngi gërëm ñu ngi leen di gërëm yéen itam leen sant yàlla na yàlla def ngeen am télévision bu mag a mag a mag a lii ngeen def nii eh, lenn la ci liggéeyal daawal islaamiya te eh, l'islam moom ku ko liggéeyal eh, yonent bi dana la fay yàlla dana la fay yàlla na yàlla defal ngeen di ay mag te def leen ngeen di ay mag yoo xam ne ñoo am teraanga ngeen kontaan nañ bu baax baax baax ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi ñaan yàlla ñaan goo xam ne dafa ànd ak cant ndax lii fekkee nañ ko ay yoon yoon yoon yoon yàlla nañ ko fekkee ay yoon yoon yoon ñoo ngi yéen yëpp ñu àndi ko feetu ci barke alquran ci barke yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam may jaalee suñu mbokk suñu euh, dooyu baay di lépp ci ñun euh, doon ko am cër ci guddi gi moom itam mooy Abdullahi wul Rabbani ah dëgg euh, buñ ne weeru koor dëgg danañ ko fàttaliku ngir alquran tey loolu ca baayam la dalee woon ci magam Mouhamed Mahmoud ba ci moom ba ci ay doomam. waaw muy damaan boo xam ne Cheikh Ibrahima moo leen ko damaanal gërëm na leen ne ñaanal na leen rabbaan ak mboolem lu mu jur kon ñu ngi ñu ngi wax amin ci ñaan googu leen bàyyi ñaanal wax dëgg yàlla yàlla warale ko ak bàyyi ak bàyyam ci gën càako wexe lii na yàlla teg loxo njabootam gannaawam ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp kulaamanta bi xeyr wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah allahuma salli ala sayidina muhammadin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 walhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi ndokkeel alxalifa al am Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass ñu ngi ci teg al imam al akbar Cheikh Ahmad Tidiane Ali Cissé di ci teg Cheikh Mahi mufassirul qur'ani ak képp koo xam ne doomi bàyyi nga di ko dara ci Fatima Zahra ba ci xale ba ga a tuuti ñu ngi ndokkeel ñëpp ci weeru koor wi te ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla nangul ñun ñëpp yonent bi sallallahu alayhi mu ngi wax ne balaa du wàcc mukk lu may bàkkaar yu bari moo ko waral te duñ ko yëkkati mukk lu may tub gu sell moo koy waral kon ñun weeru koor ba mu jeex ba mu commencé ba tey ñu ngi digal nit ñi ñuy tub yàlla tubal suñu borom di dellu ci moom di ko fàttaliku ndax moom rek mooy borom ndax moom rek moo mën a soppi àddina bi yëpp bu ko soobee di bi kenn mënta wax ne euh, euh, feebar bu mag la wala bu ndaw la kenn xamul kenn mënu koo gis te yàlla mi def loolu ba tasal ko àddina bi yëpp yàq li mu yàq ci àddina bi yëpp ñu ngi koy ñaan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke weeru koor yàlla bu ñu yàlla nattoo yàq bu ëpp li muy yàqal leer leen di ndokkeel ci guddi gi di ñaan yàlla yàlla nañ ko yàlla fekkeele ay déwén ay déwéni te bu ñu ko fekkeelee yàlla nañ ko nangul ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Ahmad Tidiane barke Baye Baye moo doon xutba bi nga xam ne lépp lu xew rek wax na ci même mbas mi boo seetloo ni muy waxtaanee da nga xam ne am na lu mu junjoon loo xam ne mbas mi moo ko firi kon moom wax dëgg yàlla amaluñ ko lu may njukkeel ñu ngi koy njukkeel di ko ñaanal yàlla yokk ma xamam ci mu nekk di ko ñaanal yàlla gën a ubbi faydaam di ko ñaanal yàlla gën a def nit ñu gën a suñu borom ñu ngi koy ñaanal lépp loo xam ne defaloon nañu ko ci àddina yal ko yàlla fay ci àllaaxira fay gu mat sëkk yaa bi ñu ngi suñu doom bay Haadi mi nga xam ne moo am am teraangaay di def uh, guddi gii say wér koor di jeex waxtu nag ñu ngi koy nuyu di ko encouragé di ko gërëm di ko wax ne na jëm kanam ndax yàlla li mu am lépp dala newu ci gannaaw ndax boo demee ba defee ne yàlla jox nala ba mu nga pare ci lee la xaatif di waxee ne yàlla lim am mu ngi ci kanam lim lay jox mu ngi ci kanam kon fekk sa bakkan bi mu ngi dem di ñëw bul naagu ci ne yàlla mën na laa yokkal ci zaahir ak ci baatin ñun nag Sénégal yàlla rek lañ yaakaar yàlla rek lañ am yàlla rek mooy suñu borom boolewuñ ko keneen ku dul moom ndax keneen nekku fi ku dul moom xooluñ keneen ku dul moom yaakaaruñ keneen ku dul moom lépp lu ñuy soxla moom lañ koy ñaan lépp lu ñuy muslu ci moom lañ koy muslu kon mbokk yi na ngeen góorgóorlu bu baax a baax a baax te nañ defar xol yi nañ bëggante nañuy demante di diggante nañ def lu baax ndax ku def lu baax yàlla fay la yàlla ñu yàlla fay suñuy jëf yu baax yëpp te yàlla bu mu ko yàlla yàlla nee na dara ci jëf yu baax ya nga xam ne mu ñu koy xiim mu ñu koy xiir ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke Cheikh Ahmad Tidiane ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu mu ngi ziyaare Fatimatu Zahra di ko ñaanal yàlla kon mbokk yi loolu mooy wax bi tey wax jarata bëril cant rek jar a bëril yàlla mi ñuy may ñu commencé koor gi ba ba guddi tey gii mën nañoo may ñu mottali ko comme ni mu gën a rafetee kon yàlla ñu ko yàlla may te defal ñu jàmm te ubbil ñu ay bunti wërsëg yu yaatoo yaatu yaatu addina bi soxla nañ wërsëg addina bi mbas mi yóbbu na lépp loo xam ne wërsëg la woon ci Sénégal même ci addina bi kon mbas moomu yal na ko yàlla teggi nu mu gën a gaawee te utal ñu so ko ay uh, xéewal yu yoo xam ne dana gërëm loo kenn ku ci ñun bàyyi nee na utal yàlla ndax ku am yàlla ñàkkatoo dara waaye ku amul yàlla amoo ak loo mën di am amoo dara kon nañ góorgóorlu lu baax a baax ci ut yàlla yàlla nañ ko ute mooy mooy lenn rek dem ci moom fa firru ilallahi inni lakum minu nadirun mubin loolu la alquran wax daw leen jëm ci yàlla ma leen di eh, eh, eh, xiir ci loolu te di leen fàttali ne yàlla rek mooy jëmukaay bi ndax képp koo xam ne yaa ngi dundu yàlla dana taaj ci kanamam laaj la li la mu mas a defal yàlla bàyyi nee na képp ko yàlla eh, nattu nattoo eh, laaj ko laaj ko bu laaj bu sew dana ko eh, alak ndax amul kenn koo xam ne ku parfait la ñëpp ñu ngi mooy yàlla ñoom ñu ngi def lu yàlla santaane wut waaye nag yàlla rek lañ yaakaar yàlla rek lañ am yàlla ñu yàlla wattul suñ mag ñi fi jógee te bàyyi seen leer ci ñun te bàyyi ñu fi ñu koy jaamu di ko bëgg di bëgg ngir moom di yëngatu ak dal ci moom yàlla mooy ki nga xam ne bula la joxee kenn mënu laa xañ bu la xañee kenn mënu laa joxo ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di gërëmal gërëm yàlla beneen yoon li ñu may ñu oor weer koor ndax weeru koor xéewal gënu ko màgg ndax koor li tax yonent bi yoo ne moo gën ci lépp lu jàmm bi def mooy ne daf dafa da ngaa jàmm yàlla ci melo ci melo mi yàlla du lekk du naan du du du sëy yow gudd weeru koor yëpp nga xañ sa bopp bëccëg weeru koor yëpp nga xañ sa bopp doo lekk doo naan doo sëy wa jazaau min jinsil amal fay gu nekk dafay niroog la la borom leble loolu lañ lebal yàlla moo tax yàlla lan mooy fay fay fay lii yàlla ci mooy fayam nee na siyaamu lii wa ana ajzi bii weeru koor man la maa moom te maa koy fay kon ñu ngi ndokkeel mboolem taalibe yi bàyyi ñu ngi ndokkeel mboolem tijaan yi ñu ngi ndokkeel mboolem kuy jullit kuy wax laa ilaha illa allah muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ndokkool ndokkeel di ziyaare suñu mag ca Dakar cheikh Mariam bintu cheikh al alhaaji Ibrahima Niass yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba ca kanam te yàlla gën a yokk ay mayam ba gërëm loo ñu bëre ñu bëree yàlla mën na loolu yàlla ñu ko defal allahuma salli ala sayyidina muhammadin